لربنا القديم على رجائنا الخديم أغمدنا لدي الخديم منخزنا من نخمه حمدا لربنا الخديم على رجائنا الخديم أحمدنا العبد الخديم منخزنا من نخمي مسليا على الأمين رسول ربنا المعين عبدا لكل العالمين منتخبا من آزمين فمن خادم الرسول أنا المعروف الوصول خبير لدى الجميل إنه دان دنانمين ذاك الذي قد سيدات بلاجي وصرفات أمة من تصرفات بجميل الأمم مريد صادق نار مريد فاسق فوز لذي تعلق بخبل مقتسم مقام مخيب وعمره مطيب وجود منسكب هم جميل نزمي هو خليل لله هو خبيب لله وانفو عباد الله منخزيم من خميل ذاك الذي من أجي وسرفان أمة من تصرفا بجميع الأمم نقل ورا زورو هدي ورا خياته صد العباد مصور تبالي للإمام أرد رسول الرمادي رب جميل مادي فما الصلاة من ربي المكرم زمامنا بيدي أرواحنا في كفي وفوزنا في أبي وإن مات المؤمن وجدت واجي الله من مات الخبا له وبخير داو مريد المقدم مجلسوم وديسا كبرجي كندم يري تبارجي سمبولم سيخ برانغوك سميتي كوام برجي أنبوتك ولايا كي تريري sama too ko feesal nee xunaandam yi may ma tey nee naa ni yaaroo tali jaar yi ma sopp lool ba def leen ni Seex jaajëf gërëm naa la Bamba tey ma jukkañ la roy mbooleem sa seex boo fi sof ngërëm ci mbari ma xam naa jóg fësal seeni bàkk tey taxaaru nga ne la barke Seex Mustafaa sa taaw nga jox baar ba muy kandi samay géej fees këre yetal gaalu diine sunna jox ma ma war te way ma teer daaru kër mam Cerno luy sell naa ko rëy dooraatali may seex yaa leen defar bu wér defar seeni ñoon jaajëf gërëm naa la bamba tey malim Seydina Ali Touré mbër ma daabiral tubarkalla yow Mbàkke joxal ndaw ñi seeni may sa sultaan ba Seex Mat yow waxa nag ma def ni moom ma laaj ma am tontoom te bamba nday ma may hitey mbar ma mor laamin taalin ja sant joom te doon mufti di majoom ba jot mbooti mbar yo way sëriñ Babacar Cargaan sëriñ Mor ma maane mbay sëriñ Aliyu niita bala mbaay ni fang tey sëriñ Sira moom sannoos si yaa tax mayam gërëy sama jaam borom sam yaa waral ak mayam di wey sëriñ si la moom sànnoos yaa tax mayam gërëy sama jaam borom sam yaa waral ak mayam di wey tamaam seex maru baat yaa ko sol duy ko ndam rafaatal ko baatin kurootul fi yow du duy